Adama mooy Ponor waaye. <laughs> su ma mbokki Ponor yi. <laughs> yow mënoo bàyyi sama mbokki Ponor rek. rek ay Ponor waaye nekk man tam léeg-léeg dama dee Pon. Mhm. bilaa ba ne suma bët yi ah dafa dimantu <laughs> rek moo tax nag bàyyi leen loolu ndax am anyway uh, concerning this uh, coronavirus xanaka uh, corona coronavirus, COVID-19. Uh, there's a, there are increasing cases of uh, coronavirus in the country. As at yesterday, there have been about 11 cases. But people, no, but, okay, 17, 17, okay, 17, yeah. 17, okay, there, there, must be a typographical mm-hmm. error. Mm-hmm. But people are concerned that there might be much more cases if mm -hmm. more testing is done. The Gambia has not done up to 1,000 tests so far. And many of the positive cases were brought in from outside the Gambia. Hmm, look around, they brought in. Okay, but now there are more concern over the issue of social transmission where uh, coronavirus is now uh, being transmitted within the Gambia the government should do more in preventing this, true enforcing social distancing, uh, mm-hmm. distancing rules in markets and other public space. Mm -hmm. Provide face mask and encouraging more safety mm. measures like hand washing and to what? To prevent spread of corona. Bye-bye. <laughs> Euh, mu doon lu am solo since from 17 of March up to date so far register nañ 17 cases so naka la faa amee lu mu faa amee ah, day na waar ah, Gambia fu mu nekk nii ah, dinaa ne sax siifatut comme nit ñi di génn a si public lifin yi ni places yi and yooyu noonu ba pare man lu ma gën a observe bi Gambia gars yi nekkuñ di def social distancing. amut moom la ñu wax ni amut fii and then uh, yéen a ngee wax ne dinañ seet si marché yi ak yooyu noonu waaye man suma su man suma concern mooy mhm. booda si ah baax na parce que parce que parce que because we am five new cases ñu nga xamante ne they are all the way from Senegal. dañ porox loolu snitching in the Gambia here and then ñu jàppal leen. te ñooñu ñëpp a ko am si cross border la ñu am. so man daal man suma concern mooy. booda si nañu dimbale ngir yàlla ñu seet nañoo defaree booda yi nañ fa teg waa immigration yi fu nekk booda because Gambia bari na booda booda boo xamante ne ñun ñu ngi wane about nine borders waaye it's more than nine loolu laa la bëggoon a wax it's more than nine borders the point is like ñoom ñoom booda yi nga xam ne cross borders yi ñoom booda yi nga xam ne ñoom lañ contrôle mooy booda yi nga xam ne moom moo fees wan mm-hmm. like Karang kaatong nga dem basee jibooro ay yooyu ñoom mbooloo yooyu la ñi xam waaye am na yeneen mbooloo yoo xam ne ok kirmu euh, al kirmoot ali xam nga yéen ngeen bàyyi xel tiyaaraasi bi kirmoot ali xam nga amoon nañ problème ak seen ndigal seen diggante sëriñ ndigal ak ak ak rakam waaye kirmoot ali Gambie ak kirmoot ali Sénégal xam nga naka la mel mm-hmm. dafa mel ni dafa mel ni gis nga euh, yoon mm-hmm. yoon yoon rek a dox seen diggante ki nekk ci kër Mod Ali Gambia dafa wax ki nekk kër Mod Ali Sénégal. c' yoon bi rek a nekk a nekk seen diggante seriously te Joshua ñu ngi gis ne Joshua sax am na booda yu fa nekka ah, ñoom Saaro mii soo ñëwee Saaro ay booda mm, foo xam ne mosuma foo xalaat booda mooy uh, Sifo mm-hmm. Sifo mel mosuma xalaat am na booda maa doon seetaan waa ji jógee Kartong ñëw Sifo bridge lañ fa def géej a fa nekka dex mo fa way waaye ñi ñaxanqa lañ fa def kenn ben personnel nekku fa waa ji taxaw mu ne gis nga fi just just just less than ten minutes nga dugg Senegal, wala nga dugg ci Gambia. I was like non man musuma xam ne fofu amna bona musuma ko xam suma adina ba kare bi ma seetaanee télé si laa ko gis. but my people this is getting worse. we should try and work on these porous borders because people are using them to cause and come in man, man, this, is, this is too much because five cases yu mujjee ñëw ni yëpp mongo. ok man beneen affaire dafa Sénégal ñu ngi téye seen ñu ngi téye seen booda yi maanaam tey soo bàyyi xel maanaam gi nga ñi nekk ci dëkki àll yi ñi nekk ci dëkki kaw yi mhm. most of them ñoom ñoo dee dugg si si biir dëkk bii nii mhm. xam nga ne da si dee bàyyi xel waaye comme ay boori Dakar ay boori Kër Massar ak yooyu boor yooyu dafa tight sen security bi dafa tight waye ngay ni nga xamne soñ taawee ne eh alaykum ñu ne la salam, salaam kooku pour mu ñu dugg ci bir Gambia du dara. tax mel ni ku joggé ci caméra tam dugg ci bir salam te ñun boode yooyu noonu moom la ñu war taxul mom la wara gëna mëna gën niki mun nga xamne dañ 17 cases since uh, only 17. nit ñaa nit ñaa ngi fu nekk di dugg si yenn saa nga dugg si moto do xam ki nga am wala fu nekk ku nekk ah ñun ñu dee jóge fu sori di ñëw liggéey. anyway man man daal man daal li ma am. pour ma daal ñun ñëpp sax fu mu nekkee nii man it's high time waxuma la sax du wax nguur gi waaye it's high time ñun ci suñ bopp ñu aar suñu bopp. Mm-hmm, ñun nañ aar suñu bopp ñoom bu pare parce que ñoom ñu ngi wax ay affaires yi euh, bi lockdown amee euh, euh, ne déggoon nañ fi kër ak ñu ne mais léegi dinañ joxe dund ana dund gi ñu joxe ñi ñaa ngi toog seen kër ba dund lañ joxe man ma ñibbee wax ne ma ñëw nañ fi bind nañ suñ turi fii la xari jaar kenn dama damaa gisagul ne joxaan leen di jële ba beneen édition of the People Bés bi